Aïda Mbène moom mooy ñëw defal ñu benn exposé. ah dégg nga. kii nit la. correct nañ bu pànkul rek correct nañ. Aïda <laughs> nañ dem xool ci politique politique. mu war a retracer histoire <laughs> fait politique wala judiciaire yi nga xam ne judicio politique wala politico judiciaire yi nga xam ne am na ci histoire politique bu Sénégal. on peut l'appeler euh, point du jour bi ni ma koy defee chaque ma chaque mardi donc cette fois si dañuy génn ci moment bi ñu toll parce que ku xool xam ne atmosphère politique bu Sénégal euh, daanaka xaw na soppeeku politique bi en général euh, bu ñuy xool la nouvelle génération bu ñu gisee ñu ci bëri sax. sax daanaka bu ñu gëstuwul amaana dinañ jàpp ni crise wala bokk ay événement yu ni mel mësta am euh, ci ci Sénégal mais tey euh, vraiment damay def benn euh, prox ndollu rek pour daal di rendre wala book ñu fàttaliku tey ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Anta Diop nga xamee ni tey mooy bis bi ñu koy daal di fàttaliku ndax le 7 février 1986 donc la génnoon àdduna fii ci Ndakaaru moom professeur Cheikh Anta Diop doon égyptologue waaye nekk mouvement bu mag a mag a mag donc ñu ko doon woo pharaon bu Afrique sax demoo nañ ko ba tuddee ni que euh, savant sénégalais boo xam te ni ku xelam màccoon ci xam-xam la mu def ay études am ca foofee nga xamante ni moom moo di Paris ba 1960 la daal di ñibbisi fi nga xamante ni moom moo di ci Sénégal définitivement doon jàngalekat boo xamante ni doon na gëstu bu baax ci histoire Égypte kon doon sàkku uh, ci ñi nga xamante ni moom moo di génération bi waaye Afrique mën a daal di jukkee ci civilisation bu Égypte bu ni mel ngir mën a ñu parfaire waat defaraat suñu bopp ci wàllum nekkin donc tey Cheikh Anta Diop moom fàttaliku tey di 37e année bu doon euh, DCM euh, ñu koy rek daal di màggal léeg gis nañ ko ci université Cheikh ante Diop ak waa Partène bi nga xamante ni samp nañu ko <coughs> di ko euh, fàttaliku tey mu doon nag égyptologue et savant ni mu ko waxee sénégalais de renommée mondiale ñu ngi ko daal di denc foofu ca ceytu nekk ca région bu région bu Diourbel euh, gox boo xamante ni daanaka moom moo sàkk woon ñu daal di koy yóbbu ci yooyu sëkk ngir mu nekk ci peggu baayam donc di ko ñaanal yàlla euh, jébbal ko ca wala boo yóbbu ko ca ajjanaam yu gën a kawe waaye tam njàngale mii fi nekk ñu gën koo fulaal ndax bokkoon na ci ñi jàpp ni ci euh, maanaam langue maternelle bi mën nañ cee basé wu ngir rekk daal di jàngal xale yi waaye tam sotti ci ñoom xam-xam bu ama ama solo loolu donc loolu lenn la woon rek Ameth lu ñu doon fàttaliku ci euh, Cheikh ante Diop bi ñu dippee UCAD euh, bi fi nekk alors damay dem tey ci point politique wax naa ko sànq euh, du Ousmane Sonko Adji Sarr wala bokk Macky Sall wala ko aar tax ñu naan politique wala entre autres politique dafa yàgg ci Sénégal 1960 ba ñu daal di amee suñu indépendance bu ñu fàttalikoo nag euh, ki njëkk a doon suñu président de la République fii ci réew mi moom moo di Léopold Sédar Senghor donc tey li tax ñi taamu ko moom moo di ñu remonter un le temps fàttaliku laata événement 1968 yi 1967 bokkoon na li gën a marqué histoire bu Sénégal ndax moom moo doonoon yoon bu njëkk ba ñu daal di euh, doon def benn tànta tentative jéem a jël bakkanu président de la république euh, bi fi woon di euh, Léopold Sédar Senghor donc euh, ki doon amal lu ni mel nag moom moo di ki ñuy dippee Moustapha mbir yi na mu demee comme ni ngeen koy gisee ci image yi ñu ñuy wan kii di Moustapha Lo ñu daal di koy denc sëg yooyu di abattoir moom moo doon jéem a daal di jël bakkanu kii nga xamante ni moom moo di président Senghor loolu mi ngi daal di kon bu ñu rek daal xoolee 1967 euh, bisub it la daal di tombanteel ndax euh, Senghor euh, bokk na ci président yi nga xamante ni saa bu julli it doon am dafa daan ànd ak ñi nga xamante ni ay membre loon ci gouvernement bi bokk ci patronat bi waaye doon ci autorité yi ñu defar leen turbine bu mag boo xamante ni daañu fa doon toog ba ñu amal julli gi ba noppi ñu wàcc ànd dem jour boobu nag kon ajjuma la daal di yamoon muy 22 mars 1967 Euh, euh, kon ngeen gis ko nii mu xewee euh, nit ñi jugandoo woon dem di yuuxoo ginnaaw tentative d'assassinat bi la woon donc ba ñu jullee ba noppi ci 22 mars boobu 1967 Senghor wàcc na saafonte nuyoo bay dugg ci otom bii di décapotable ci niki noonee nag la am ko fàqee ci làng gi muy Moustapha Lo daal di nag jël pistolem tiire ko ñaari yoon Euh, waaye ba muy euh, daal di euh, kon tiire mujj mbir mi mujjul woon dem ndax am na lu ñu waxoon ci wàllum protection loolu la ñu xawoon jibal la que ni Senghor dafa àndoon ak moom waaye lu ci mënti am tànte na woon tiire waaye bés boobu Moustapha Lo mujjul àggali li nga xamante ni moom moo doonoon kon bëgg-bëggam donc ci lañ noonu lañ daal di patam patamee Senghor daal di koy dugal ci otoom boobule mu départ donc Moustapha mujjul rëcc ci bis boobu mu doon tante euh, kon tiire ki nga xamante ni moom moo di Senghor euh, ca lañ ko daal di jàppee dugal ko ci fourgonnette boobu yóbbu ko euh, ca kon kaso ba grande mosquée bu bu Dakar la lépp xewee nit ñi tiitoon nañ tiit boo xamante ni ñëpp tasaaroo woon daal di àndandoog oto ba ñii topp ful bi ñii topp fourgonnette bi nga xamante ni moom la ñu daal di dugaloon ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Lo kan moo di Moustapha dinañ ko tam daal di laajte bokkoon na Euh, kon këru diine yi famille yi gën a mag ci këru diine yi euh, ñu ngi daal di xamle ci wàllum histoire sax euh, moom cousin la ci Serigne Serigne tijaan Serigne Cheikh Tidiane si almaxtum daanaka ci ay waxtaanam yu bëri sax bu ñu koy seetlu doon na fàttali li nga xamante ne moom moo di histoire bu Moustapha Lo bile que jamono jooju li ko marqué woon moom mooy ay rivalité donte sept ans rek la après l'indépendance du Sénégal waaye contestation dafa nekkoon lu mës di am ci wàllum politique ndax du ñëpp ñoom ñoo di ànd ci li nga xamee ni moom moo di politique yi nguur gi di rek daal di euh, kon euh, teg donc ci lañ ko daal di jàppee moom Moustapha Lo di amal ay enquête jamono jooju nag 1967 euh, Senghor demoon ba wax que ni kan wala lan moo motivé Moustapha Lo amal lu ni mel ñan ñoo nekk derrière Moustapha Lo bu ñu bëggoon daal di jël bakkanam ci bu sip julli it boobu ba ñu defee ay enquête nag dem na lu sori loo xamante ni euh, euh, jàpp nañ ci ñi ay ñu ñu jàppoon ni complice ak ñu ñu jàppoon ñi taq nañ taq nañ ci wala taqewuñ ci ñu ci bëri kon enquête boobu taxoon na euh, caabi daal di leen féete ginnaaw donte nag mbir yi mi ngi doon dem mais askan wi ñenn ñu ngi doon laajte est-ce que réellement Moustapha Lo lu mu bëggoon moom moo di euh, jël ki nga xamante ni moom moo di Senghor bakkanam euh, ci li ñuy doxal enquête yi di wëy euh, médiation yi di dox ndax yaa Moussa médiation yu lu yàgg la ci réew mi donte Moustapha Lo bu ñu bu ma waxee léegi rek que ni bokk na ci famille diine kon du ñàkk bu coow yu ñu mel amee ñoom itam ñu dugg si ngir médiation am laata kon le pire di produire médiation yooyu donte amoon na waaye Senghor dafa lànkoon ci joojee jamono ngir ngir euh, daal di euh, amal boobule médiation maanaam ñu baal ko suul lépp lu dem ndax Senghor lan la waxoon phrase bi mu utilisé woon on fait pas de la politique avec le cœur d'une jeune fii euh, maanaam daal politique politique la rek te boo ciy dem doo ci am demi mesure te amul liñ ci xalaat jamono jooju nag moom moo waraloon ginnaaw euh, médiation yi comme ko doxul dem nañ ci wàllu justice mbir mi di gën a tar ci boori Moustapha Lo ak ñi ñu jàpp ni ñoom ñoo ko yebal grâce présidentielle bi ñu doon def boolewuñ ci ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Lo ci niki noonee nak lañu ko daal di euh, condamné defal ko peine capitale maanaam peine de mort bu ñuy wax ci ñu ñu daal di exécuté sax euh, ci Sénégal Moustapha Lo bokk nag ñi ci njëkk donte dinañ ci ñëw ci beneen euh, jamono euh, donc euh, ci lañ ko daal di fi mu nekk nii daal di kon tegoon li nga xamante ne moom moo di daan bu ni mel bu ñu sukkandikoo même si bay laa wan moom mi defoon témoignage nekkoon directeur adjoint bu cabinet bu Senghor nee na Moustapha donte yóbbu woon nañ ko kaso mais nduruwul benn yoon koo xamante ni mi ngi doon maanaam nduru ku fayir ci mission am wala wala am regret ndax sérénité la di àndal diirub bi mu nekkee ci kaso moomu nag euh, dañ koo exécuté ci place publique bi ci teewaayu askan wi yëpp maanaam dañu ko rek daal di daal di faat ci bëccëg boo xamante ni daanaka euh, trouble na woon sénégalais yu bëri fi nga xamante ni moom moo di euh, ci euh, réew mi nga xamante ni moom la ñu nekk Moustapha Lo donc bés boobu ñu ko indi bu ñu sukkandikoo sax ci baylawan mi nga xamante ni donc nettaliwaat na mbir mi nee na ci bés bi ñu ko waroon teg faat ko ci kanamu askan wi ci la mustafaaloo gënoon nekk ci noonu nag la dem julli ñaari ràkka ndax daanaka euh, su ma remonté un peu sax ci devant la barre saa bu demoon li mu doon xam ne mooy sama bëgg-bëgg doonul woon Fat Senghor li ma ko bëggoon xamal moom moo ki donte am na ay gori yu ko wër donte am na protection bu ko wër waaye saa bu ko askan bi bu bëggoon bëggee daj ci moom dinañ daj ci moom loolu dong laa ko bëggoon euh, euh, daal di def mais awma woon intention jël euh, bakkanu Senghor donc diirub liñ koy taxawal doon def procès bi da doon wax da doon plaider non coupable maanaam mosul def li nga xamante ni moom lañ koy jiiñ ci noonu nag bis bi ñuy jël bakkanam kon kon 1967 Moustapha Lo ci la rek daal di julli li nga xamante ni moom moo di ñaari ràkka daal di sant yàlla tourné daal di wax ak benn juge ne ko yow de xaw ma luy sa ëllëg waaye man maa ngi dem ak xel mu dal ak xam ni aw dara loo xamante ni maa ngi koy reproché euh, sama bopp ci noonu rek la ñu daal di euh, faate le 15 juin ki nga xamante ni moom moo di 19 euh, le 15 juin 1967 kii di Moustapha Lo donc ci kanamu ful bu Sénégal bi yëpp donc Ahmed mu defoon fi benn ëmmët bu mag a mag a mag waaye Senghor def fa révélation bu mag. sàkku ci rajo France ginnaaw bi xam le ni depuis bi mu ko faatee euh, maanaam jugul ci di def ay couche cauchemar muy gént yu ragallu yoo xamante ni euh, daanaka euh, wax na ko muy tiitaange ëmp bu mu àndaloon ci jugement bu mu def ak maanaam mbir yi ni mu demee mbir yi nag wéy na ndax am na ñeneen ñu ñu exécuté fii ci réew mi waaye Abdoulaye Wade ba mu ñëwee en en 2004 daal di abolir li nga xamante ni moom moo di nit ñi ñuy faat mu nekk histoire peine de nekk histoire ci politique ki nga xamante ni bokk nañ ko ci ki ñu njëkk a euh, faat donc mu doon jéem a jël bakkanu Senghor Ahmed donc lii lañ leen indi woon tey ci point politique du jour euh, mardi incha allah dinañ leen woyal ci beneen point boo xamante ni laale na ak mbir mi le merci merci beaucoup soxna Aïda Aïda Aïda Mbène di di di ci nuyu waa famille bi comme sànq ni ma ko waxee rek li ngay wax yëpp mm-hmm. sama sama xel mi mu ngi dem ci affaire yu bari donte fekkewuñu ko mais événement la mës a nekk Sébikotane mm-hmm. euh, sànq docteur mu ngi wax euh, sama dëkk parce que Moussa Fallou fa la baaxoo ay waajuram fa lañ dëkk euh, si suñu wayjur ak mu xaddamam maam alaaji Malick bu baax boobu maam ji taalaloo mm-hmm. ñu ngi koy ziar di ziar njaboot gi bu baax a baax di ziar soxnaam ba woon muy soxna Fatou Sarr ak taawam ba Oumou Kalsoum di leen ziar bu baax a baax. réaction par rapport ak euh, li Aïda li Aïda benn. Euh, damay féliciter vraiment Aïda pour euh, ce point d'histoire parce que mm. damay faral di wax ne <clears throat> suñu le rôle de nos médias li def ci bokk. Mm. parce que histoire dafay tax nga xam yow sa dëkk fan la jóge ak tamit fan nga jëm. Mm. loolu moo tax peut-être c'est un par ricochet Euh, au mois de novembre dernier euh, faisant partie parce que je suis la responsable média société africaine di laboratoire bi nga xamante ni mooy Labemetics laboratoire média technologie information communication société bu UGB je salue au passage professeur Mor Faye nga xam ne moom mooy coordonnateur université Cheikhul Khadim bi nga xam ne son excellence le président de la République monsieur Macky Sall inauguré na ko démb donc ci laboratoire bi euh, keroog bi ñu jëlee initiative organiser la journée mondiale du patrimoine audiovisuel fii à la maison de la presse liñ ci mbébétoon en tant que scientifique en tant que chercheur mooy fexe ba euh, suñu démb suñu mémoire bañ a nasaxaay parce que dafa am solo ñu jàpp ne ñu xool ne léegi ak xarala yu bees yi war nañu mën a rattraper li nga xamante ni euh, moom la ñu perdroon ci histoire peut-être certainement dans dans le cadre d'autres émissions nañ ci ñëwaat euh, di wax ne effectivement c'est un point d'histoire évidemment boo xamante aussi dafa loo xam ne kenn du ko fàtte ah, pour plusieurs raisons, notamment parce que euh, le président Léopold Sédar Senghor euh, a été le premier président de la République, même si par ailleurs on avait euh, donc un président du Conseil qui s'appelait Mamadou Dia, mhm. mais euh, dans sa fonction, euh, donc euh, je veux dire certifiée, il était président la République, le mm -hmm. premier président de la République du Sénégal. Et effectivement aussi, mu def loo xamante ne nii aussi certainement c'était aussi encadré hein, parce que c'était aussi dans la loi mm -hmm. que ku rey wala en tout cas s'il y a des dispositions yoo xamante ne nii dafa méngoo ak li nga xamante ni moom mooy la la peine de mort mais elle est baume. Euh, pour revenir un peu à à à à à Moustapha Lo par ricochet hein loolu dama koy wax un point d'histoire euh, c'est aussi ma famille parce que aussi euh, mm-hmm. Euh, nous avons des liens de parenté euh, avec la famille Lo euh, de Sébikotane et donc de dire aussi que même par rapport à la défense les gens disaient que oui bon le le le le l'arme n'était pas mm-hmm. n'était pas je veux dire il n'y avait, il n'y avait pas de balle donc n'était pas chargée mais loolu yëpp c'est des points de défense mm-hmm. ce qui demeure constant mooy effectivement euh, dafa nekk euh, quelqu'un euh, un Sénégalais donc qui a voulu attenter mm. à la vie d'un chef d'État Et effectivement aussi ce chef d'État-là, euh, donc imbu euh, euh, voilà, des, des prérogatives qui étaient les siennes, à juger nécessaire, évidemment avec tout un arsenal, c'est ce dont je parlais avec Moussa, ah. Maneko, mm -hmm. nous sommes un pays de droit. Effectivement, à ce moment-là aussi, on était un pays de droit. C'est vrai, à, part l'émotion, à part tout ce qu'il y a autour, parce que c'est vrai, de Bokti famille, etc., il y a aussi ce qui a voulu attenter donc, à la vie d'un chef d'État qui est, je veux dire, Euh, l'institution suprême euh, du point de vue de de, de l'attelage institutionnel et donc effectivement euh, donc lui-même ayant les prérogatives de grâce euh, donc euh, mais aussi les prérogatives de ne pas gracier a jugé nécessaire que voilà donc en tout cas c'était de son ressort de le gracier ou pas il ne l'a pas fait c'est un point d'histoire euh, qui est inscrit évidemment donc dans les annales de l'histoire du Sénégal Euh, ce que je peux dire, c'est vrai, euh, il a toujours de l'émotion. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez lu les derniers jours d'un condamné de Victor Hugo, mais voilà. Et aussi, on peut aussi remonter, euh, je veux dire, avancer dans l'histoire avec, par exemple, L'étranger de Camus, avec Morceau, qui a tué, qui a dit que voilà, les réverbérations du soleil, mais que lui-même, amul woon intention mais que euh, c'est tout cas, je vous félicite pour ce point d'histoire. Voilà. était était maigre. merci merci beaucoup Aïda bokk bokk na ci aussi li nga xam ne njaboot gi sàkk woon nañ ko mooy. gannaaw buñ ko exécuté ba pare ñu indil leen ko. dañ leen ko gàntaloon ci mhm. jamono jooju. Mhm. Euh, di fàttali ne aussi ci njabootu. Serigne Babacar si la bokk ndax côté yaayam fa la fa fa la fa la bàyyeekoo. côté waajuram bu góor. muy maam El Hadj Taala bi ma wax sànq moom tamit mu xaddamu. Hmm. maam El Hadj Malick la woon jàngadoog Serigne Babacar ñu yeewi ko ne ko mu ñëw Sébikotane. Hmm. donc loolu tax mu bokk ci une famille euh, religieuse. Hmm. almaxtum ñoom ñaar aussi mën nañu wax ne ñoom ñoo nekkoon entre guillemets les deux grands. opposant de Senghor ci jamono boobu ñoom ñaar ñoom yàlla xaral ci waaw c'est c'est c'est c'est c'est important en tout cas di masawaat njaboot gi chaque fois suñ koy wax moom comme comme li li docteur wax émotion bi dafay bëri mm-hmm. surtout sama waa dëkk bu fekkee ñu ngi seetaan xam naa ne émotion bi bëri na euh, parce que à un moment donné comme histoire moom da ngay dégg côté bu nekk nuñ koy nuñ koy nuñ koy nuñ la koy joxee dëkk ba moom héros la fa parce que mm-hmm. dañ ñoo gëmloo ne dafa bokk ci li mu doon bañ mooy Senghor di ñëw ci jàkka ji waaw ah, moom loolu la doon bañ loolu lañ ñu loolu lañ ñu wax donc moom mu lay wan ne histoire moom version bu nekk ngay dégg moom loolu la doon bañ ñi nee nañ non da ko bëggoon ku nekk wax nga sa sa sa version mais en en en tout cas li li docteur wax moo ci ëpp solo mm-hmm. yàlla na leen yàlla xare àjjana euh, te te ñun ñiñ fi bàyyi yàlla def si suñu réew mi jàmm mm. voilà ñun actuellement soxla nañ jàmm <laughs> waaw donc euh, c'était ça Ameth jooyloo nga Ameth ah waaw ay mboqam la ñu jàmm bëri lool sax Sénégal actuellement on est dans un pays de paix waaw jàmm ñu ngi koy santé bu baax son excellence de président de la République parce moom c'est un homme de paix. waaw c'était ça bàyyi ma tëj bàyyi leen ñu wéyal ci waxtaan wi donc Ameth c'était ça ci ñu jógee ci contexte bi ñu nekk wala contexte la bu ñu yóbbu ci contexte boobu. Mhm. mardi euh, prochain incha allah dinañ dikkaat ci beneen point politique waaye tamit indiwaat ci fàttali ki yoo xamante ni euh, na jeune génération bi xamuñu ko ci politique bu Sénégal jërëjëf donc ba mardi. merci beaucoup euh, Yaa ma bàyyi la kàddu gi ñu daal di xuus ci